أولياء المؤمنين القتال وكان الله mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah yi ñu ngi ci barab boo xam ne ni barab la boo xam ne yàgg nañu fa liggéeyal sëriñ Touba ci li mu gënoon a fonk ci àddina muy alquranul karim te xam ngeen ne dëkk bi kat dëkkub daara la te bokk na ci alquranul karim muy moomeelu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul mbokk yi jamono yii ñu toll mbas mi tax timis ku ñu fekk ci mbedd mi nga amee jafe-jafe waaw ndax bàyyi nañ xel dong yi nga xam ne dañoo war a jëli reer war a jàng marax ñu ngi soññ mbokk yëpp ñi nga xam ne mën nañ nañ bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne dañuy sàkku ngërëmal yàlla ci seenub dund nañu yokk seen dépense di teerapale reer yi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon nañ bàyyi xel bu baax daaray alxuraan yi mbokk yi te lu yomb la te kenn ku nekk mën na ko am na ñoo xam ne mën nañoo gàddu dépense su daara ji di ko toggal nag te di ko indil ci waxtu am na ñoo xam ne mën nañoo jël ñetti dongo yokk seen dépense reer bay teel a pare ñu di ko indi kon nag mbokk yi jaamu yàlla ngoog te it nag lu am solo te it nag ku ko def bu dee mbégum Sëriñ Tuubaa la na nga xam ne di ko am te boo ko amee am nga ngërëmal Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam am nga ngërëmal sunu borom loolu rek la ñu bëggoon fàttali mbokk yi te xam ne du ñu ko fàtte daaraa ngi toog di xaar daaraa ngi séntu ku ko jàppale daara jaaxle na ndax waxtu wam daan utireer dañ ne ko waxtu kenn dootul génnati kon nañ fexe ba mu jot ca reer ba te du yàq dara ci am njàngam balaa moo guddi. Eh, yàlla dogal na président réew mi waxal na boppam ci làmmiñam ni huit heures dafa bëgg ñëpp di fatu ba ñëpp dégg ko. ba six heures ki nu yàlla booleel muy xalifa général des mourides di Sëriñ Muntaxa it mel na ni joxe joxe na ndigal ci ne li gouvernement bi santaane ngir wér wéru yaram gi lu ci lislaam nangu nañ ca ànd ak ñoom doog ngay daara yi nga xam ne dañuy ñoom ñenn ñi ay internat la ñuy def gaa dañuy dañuy togg togg wala ñu def internat boo xam ne ña fa amee doom ñoo fa yóbbu añ waaye loolu mu tut asakay ñiy jàngale ci biir Tuubaa tayor daara yi cosaan mu tut asakay loolu te ba noppi ñooñu dëgg la Touba seetlu naa ni bari na ci ñoo xam ne am nañ ay ndey daara mbootaay yi dimbali daara it bari na ci fóot ak lépp waaye diggante gone gi fi muy sëlmaleel tibis bay jëli reeram képp di ko indi ci daara ji waxuma yalwaani maanaam fan lay daara gene mu jëli reer ba taxawu ko mu tibbal ko képp muy kër day daara ji mu mel nag ne kon jaadu woon doon na baax ndem mën nañ ko ñun ñi xam ne ay waajur dong nañu ci ci donga yi duñ ay sëriñ suñu ñun ñu leen digal dëkk bépp muy Touba ak dëkk ya xam ne ci Touba la ñuy dox ñu fexe ba borom kër bu ne yokku dépassam ngir ngir tibbal ca ñaari donga te dë maanaam donc daara dëkk bi dëkk bi li ci nekk ci ay donga matut 5 pour cent ci mbooloo ci borom kër yi fi ne daara yi nga xam ni ci biir wiil la ñuy ne nga xam ni ay kër lañ taxawal bàggal Euh, mën nañoo fexe ba teg ko ci yoonu kenn ku ne yor ñaari donga yoo xam ni yaay bu yóbbu ci daara ja wala nga leen dee leen ko jël si loolu ndimbal lay doon te itam lu neex suñu tuwaa lay doon bu ko defee gone yi jëri gi rek ka leen cee war wala ka ko ci daara ja euh, ak itam borom kër yi di fexe ba kii togg reer moom na koy wax ne ko bu ma sëlmale timis na reer bi noppi la ngay yóbbu ci daara ja na dem wala ki koy jël si ñëw jël si ko waaye kër ga nga xam ne dañuy toog saa bu seen reer jotee ñu reer bu ko defee jàngalekat yi nag di fexe ba dab yooyu bañ a réer wala ñu wutal seen bopp ay super ngir loolu ñu liggéeyale ko Serigne Touba sàkkoo ko itam ngërëmam te mobiliser sat setal bi ñuy def ni ko jigéen ñi takkee ba ko def par alxames man nañ ne def ba Touba ba ba li fekk yàlla jeexal lii Touba daa ko dem gis naa nag ñu bari di dimbali eh, daara yi ci ay ceeb loolu nag dimbali gi nii ci ay saako ceeb ñaari ñaar ab bërigu pepp mën naa dimbali jàngalekat ba ca njëlul boppam ca këram wala benn benn kilifa ya nga xam ni ay doomi seex lañ te daawuñu yalwaane ak jàngalekat yu mag ya nga xam ay ay généralam waaye mënut a yor daara ndax ndax man ba ba adduna yi tukki ma mën a diggee mukk toggal ndax du ma limité ñi may jàngal te te ñi may jàngal nii wóor ma ni ku xam ci man dara xam nga ni ceeb nii ak la may àndal doyut samay dongaañu bëri bërigoo mi itam doyuloon ceeb loolu maanaam fooy jëlee ñu la ko saytul ak silvise ga ca war ak milim ña war a àndal ba teg ko ci loxoy gone ya waaw léegi nag loolu jëfewut maanaam daara gone ña ko wër fexe ba dox seen digganteeg daara ja ci tumuranke loolu jëfewut te itam ñi nga xam ne ñooy def ay xutba ci jumaa yi eh, ci a yi ak ñi jàngale diine ci rajo yi ñoom itam loolu dañ ci am sars dañ ko war di wax ba nit ñi di ko xam ñaan itam ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy wax waaw léegi tey itam joxe aw ñam nii dafa bari njëriñ ndax si Mourou Mamoun Mbacké moom Daaru Salaam bi nga xamee ne train 45 jeex na yitteem jëpp da koo jëmee ci bu xëyee togg laax ak sumbul bu bari suukar ko def ay baas ci Daaru Salaam nga xam ne ko amul borom kër bu ne te amoo njël te rusa ñaan da fay jaar lekk dem tool bayale sa bopp def na ko ba ba ba ba crise bi jeex. loolu nag bokkoon na la ko mayoon xikam ba si munu moom mu daa mas a laaj suñu Tuubaa ni ko damaa bëgg nga wax gan jaamu yàlla moo gënal yàlla ndax man li yàlla digle lépp xam naa ne mënu ma ko def ni ko yàlla diglee waaye gan jaamu yàlla moo ci goo xam ne yàlla gërëm loo na ko ba su ma ko defee yu sew saan yi lu ma ca lu ma ci rëcc itam dana ma ko jégal wax ma itam gan gan lan la yàlla gën a bañ nga xam ne ku ko bàyyi dana mel ni yi nga des yàlla maanaam yàlla du la ko topp topp gu bitti suñ tuwaa ko togg ñam wuñ fonk jox ko jullit yu ca loro te bañ ca am xëj ak seen ko defee de ta saxal ko dana mel ni yeneen yi ki des yëpp defoo mu ne ko mooy yàlla yi mu ne ko mooy yàlla yi de gi ci yàlla gën a bañ mooy weddi ku yàlla nangul maanaam ku yàlla nangul wala mu di ko liggéey loo ci jaam yi mu tëral baagal nga tiri ko googu mooy yàlla yàlla gën a bañ ci jaam yi loolu nag kon dafa mel ni su nit ñëpp jëm na ci gannaaw loolu itam borom barke yi ñi ciy ñoo xam ni samay wax xam nañ ne waddu naa ko teyit man ab sant rek lay doon waaye nag ñi ñi sës ci liggéey bi ci la ma ci la yàlla boole ndax mag damaa yar te dama cee yàgg fépp fépp fu kilifa mbàkke mbàkke ne wala ko suñu jàpp naa ne maa waral xasaayit topp sa ginnaaw di suuxat sa njëmbat di ñaan yàlla moom meññ te dara bañ koo róor kon man lu lu lu leen sagal di saral seen xol sama làmmiñ du ca jëm ma ngi ku ca jëm waaye daal borom barke yëpp njërul kër gu mag war nañoo war nañ koo dekkalaat ñërul kër gu mag waaw maanaam togg rek togg goo xam ni da nga cay jublu mooy waa maanaam ku ñu xaaraankat yeeg apprenti yeeg ouvrier ya den ak yow kër la fañ yeeg ñi indi woon néew guddee ñi fi xamut kenn ñi saa safan barab bu mag bi nga xam ne kër kilifa goo da nga xam da ngaa ñu bu ñoo ñoo añee nag ñi ñi bàyyi peel yi seen loxo jotul seen ginnaaw bu ñu xamee ne loolu am na saa bu añ jotee danañ dem ci kër yi kilifa yi suñu añee des yéen ñu tubb ko ci seen i soo yóbbaale waaw loolu itam aman na fi de yàggat na fi itam noo ngi noo ngi leen di sant nag te di leen gërëm di ñaan suñu Tuubaa jeexal mbas mi ci jàmm te may nu ak njëggal te itam ñaan yi ñu jëmee ko kanam te itam yëf yi décret yi yëpp ñu di ci dugal ak tey ak xàllamente ndax autorité bi li mu wax dégg naa ko ambulance yi docteur yi chef d'état major général yi armée bi ñëpp ñu ngi ak seen i kayit waxtu wala neex la ñuy dox loolu la nañ xam ne suñu Tuubaa da koo am loolu Sëñ Tuubaa da ko am daa di amee bëkk néeg di amee sofóor di guddi di topp guddi di seeti ab donga tax ñoom mënuñoo xàmmee ñëpp dugal ci ak tey daal baax na ci dóor yi nag moom bu Sëñ Tuubaa ñëwoon tey ne buñ ko mënta bàyyi nañ génn dëkk bi léegi laa koy wax ku leen neexoon dóor donga yi moom bu ci desee bu Sëñ Tuubaa ñëwoon ni lu mën a doon jëriñu